loolu di yéen kaay xëyee tey yéen tamit laaj nañ leen waa APR gars yi ñu ngi leen di wër te fu ngeen ne. bon maa ngi nuyu ñëpp ah, di di nuyu. waa Sénégal parce que seen télé bi ñëpp koy seetaan. Mm-hmm. di nuyu d' abord sama militant yi ak sama militante yi fu ma dem la ma leen di nuyu parce que ñoom ñoo tax may politique di nuyu sama famille yëpp ah. Mm-hmm. donc euh, waa APR ñu ngi ñuy topp. <laughs> reetaan nga de. waaw ñu ngi nii toog ah parce que aussi bu fekkee dañu ne dañ fal président. Mhm. nañ ko may grâce. Mhm. mu defaru boog pas liggéey defaru. mais ñun ñi nga xam dañu dañu yàlla dogal na def ñu dañu gagné. Mhm. mun nañu may quelques jours quand ñu ñu defaru ñu tamit. ngeen xoolaat seen bopp. waaw mais ñu ngi fii ñu ngi si jàmm ak salaam. vraiment di di di remercier président de la république. waaw euh, Macky Sall. parce que aussi am na loo xam ne nit ñi dañ koy fàtte. Euh, président Macky euh, dama dégg doyen wax léegi est-ce que APR du mujj comme PDS. Mhm. en fait mënul bokk. parce que yàlla dafa dogaloon président Macky Sall bokkoon ci PDS. di liggéey ak ñoom ay at. 2000 mhm. ñëw 2000 2012 ñëw sénégalais yi wóolu ko jox ko réew mi. Mhm. pour dire vrai APR ci boppam. am diggante bi ñuy opposé ak bi ñuy jël réew mi amuñu woon temps boo xam ne sax dinañu organiser suñu parti. loolu moo ñu loolu moo ñu loolu moo ñu topp ba léegi diggante bi ñuy organiser suñu parti ak bi ñuy réew mi dafa jege trop. te ba tey organisé wul de. <laughs> que ku nekk ak si système aussi. Mhm. bu fekkee organisé woo jël réew am ñaari mandat mais mhm. peut-être loolu moo la arrangé. Mhm. mais peut-être que inconvénient fu muy nekk mooy boo génnee mandat ba. boo jeexalee ñaari mandat foofu lay problème di nekk. mais ak qualité gi ñu am ci président la république comme ni ko doyen waxee mi ngi mi ngi mi ngi woote mi ngi mi ngi wax ak ay militants mi ngi waxaat ak nit ñi di remobiliser waat partem vraiment te loolu moom ñun ñëpp dañ koy rafetlu. ku mel ni man ak keneen ak keneen ñun Macky Sall la ñu xam. APR ci boppam la ñu xam. président Macky mooy mooy président parti APR. d'accord keroog ñuy def congrès mm. dañu dañu fal président Macky Sall comme président du pa président du parti APR. Mm-hmm. ba pare doo ko def candidat Amadou Ba. ok loolu moo fa am ñëpp di ko dégg ñëpp salué ko ñëpp rafetlu ko mu jóg taxaw jël parole mu ne Amadou maa ngi lay dénk nga muñ nga góorgóorlu tànqamlu lu bari di nga ko dégg lu bari dina la dal mais na ko muñ te xam ne noonu lay demee. est-ce que discours bokkul ci li leen affaiblir non fa laa jëm non non non fa laa jëm li mu koy wax ñëpp a ngi taxaw. cest à gis nga gis nga nit ñi ci boppam ñoo bëgg dugg ci diggante Amadou Ba ak Macky Sall. kon daal amul problème. man ci sama gis-gis man Aziz ni ma xamee président Macky Sall waxuma amul problème waxul am mais loolu man du sama problème xam nga sama problème mooy lenn. Mhm. nan la ñuy def ba deux mille vingt neuf président ñëwaat ci dëkk bi jël réew mi. moom Macky waaw. dégg nan la ñuy def ñun waa APR. ba 2029 président ñëwaat ci dëkk bi jëlaat réew mi kon ça veut dire que au sein de l'APR amul kenn koo xamante ne war na mën a jël làngay dem dem. Adama ñun président Macky Sall mooy suñu président parti hmm. Amadou Ba moo nekkoon. candidat coalition Benno Bokk Yaakaar. parce que tout simplement le président Macky Sall n'avait pas brigué un troisième mandat. waaw parce que président aussi nañ nañ ko wax nañ ko wax nañ wax dëgg rek te yàlla tax. bi ñuy fal jomaay mii keroog bi ñuy waat. Hmm. ñëpp dégg dégg nañ lu ñu wax. Hmm. dañu gërëm président Macky Sall ci grandeur bi mu am mënoon di def troisième mandat mais def ko. Hmm. parce que boobu mi ngi mu ngi sauver réew mi ci def pour loo xam ne nii ëllëg dina ci am way du way sax parce que mënoon def kat troisième mandat mënoon na gagné mais dafa xam ne aussi démocratiquement waxoon na ko bi ñu ko falee 2019 la ko wax. ne leen du ma def troisième mandat. léegi loolu moo tax ngeen jàpp ne war na mën a ñëwaat 2022. Ah, am na ci droit non. am na ci droit waaw ah, man may ñaan li nga wax noonu révélation man non non si si man maa ko wax si man maa ko wax man assume fan lañ tëdd non déggoo ma loolu dama ne damay ñaan yooyu yëpp waaw maa ko assumé man maa bëgg président Macky Sall dellu si waat en 2029 mu jël réew mi. balaa waa APR naan moom moo wax ak. non man maa ko man tam kan moom moo ne génne APR. da ngeen bëri woon ay candidats euh, kii. man kër déggoo ma la benn candidat lañu amoon. Mhm. muy Amadou Ba. te gis nga gis nga élection yi phénomène moo am rek tey Amadou Ba bu àndoon na Sall ci oto chaque jour di campagne ñoom ñaar ñu génn xaalis bu bari du tey ñu gañe ñu. parce que mhm. phénomène bi am la. à mhm. 2012. mais Ablaye Wade moo ñu ëppoon moyen fop te dañu gañe woon c'est-à-dire phénomène bu ñu ko jiñ kenn mhm. nañ nangu ne lii la yàlla dogal dañ leen waroon a bu ñu ko jiñ Macky Sall bu ñu ko jiñ amoon bu ñu ko jiñ kenn dañu waroon gañe gañe nañu nañ ko assumer nekk ay opposant di opposé mm. normalement ñu sànni xeet def dara c'est ça ci lañ nekk